mbokk internet Sénégal seet saa su nekk rek ñuy ànd ak yéen ak mbégteeg fierté ak contentement bu baax a baax a baax di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di émission jël waaye nag nee naa émission jël jëli ci wéer benn yoon saa su damay am ñu ma ciy rawatina nee naa la sama yaay ji nga xamante ni moom nee naa la dafay spécial àdduna sépp ko bëgg tubarkalla muy ramado ramatulaay docteur Jeeg ji nuyu nag képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy bàyyi xel di ñu topp ci émission yi di ñu seetaan waaye nag rawatina nee naa la ñi nga xamante ni nii ah, daba ceena la ñuy bégee saa su nekk rek nee naa la ak Ramatulaay docteur Jeeg ji ba tax na nee naa la tey ah, dañoo ñëw rek nag daal leen i yaatalal ndax nee naa la fan yi réew mi dafa yëngu waaye rawatina nag nee naa la week-end bi ñu génn ba tax na dinañ xuus dugg ci waxtaan wu am solo di nuyu nag ñëpp ñoo xamante ni nii rek ñu ngi ñuy bàyyi xel nee naa la rawatina waa Touba di fa dugg di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru mu yàgg fi lool te ànd ak wér borom mbég meeg taal jéeg ree ji nee naa la di dugg ci waawan gi leen jiyaar bu baax a baax a baax ña fa nekk di ndeyu di nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour bu baax a baax di ko tàllal samay loxo si Malick waaye nee naa la damay dugg Njaasaan Kaolack du ma leen fàtte benn yoon di jaar fi nga xamante ni moom mooy euh, nee naa la euh, euh, Yoff di nuyu nag képp koo xamante ne rek kilifa diine nga wala kilifa aada nga ñi nekk ci biir kër yi di wéyaale seen jàngoro yal na leen ko yàlla saafaraal ci barke mm-hmm. yonent bi mm-hmm. di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital yal na yàlla fëgg seen bopp taba ñu tëral kenn di ñaanal ñëpp way dawla yu fañ ne yàlla na leen gënal fi ñu jóge ci barke Mohammed di nuyu nag sama yaay bu baax a baax a baax di ko bàyyi rek moom tamit mu daa di nuyoo muy Ramatulaay docteur Dieg gi Rama nuyu naa la fay naa la dama dama ceena <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay. di kontaan ci yow bu baax a baax a baax ni la bële bi far na népp tarkaal la. waaw waaw bële bi dangaa def turquoise def bële bi. <laughs> macha allah waaw dëgg laf cat laf <laughs> cat kontaan naa kontaan naa maa la gën a kontaan. waaye du nuyu euh, mbokk internet maa ngi leen di nuyu di leen di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne Ramatulaay docteur Dieng gi seen conseillère matrimonial tubaar fakàlla macha allah ñëwati nañu ci émission Dial Diali ma ànd ko ak sama doom. sama rak waaye sama xarit Daba Thiena borom mhm. sañse bi tarkaal la dëggal maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare eh, waaw nee naa ko saa su nekk rek doom ndeyam da caafoo ndax su koy nàmpal da koy xool mhm. nee naa la tubaarkaal la boo leen gisee sañse yu yànji yi tey xam ni sàmbaa fi jaar mhm. tubaarkaal la nee naa la ah, tailleur bu mag ba nga xamante ni ma nga ca yëmbal nee naa la Euh, joom Couture Samba mhm. moo jaar fii tey génne ma ci grand bu baax bi ñu ne deete waaye mu génn ci sama yaay rama mhm. docteur jeeg ji waaye it nee naa la ah joom Couture daa ñëw rek waaye sama sama sama jasneer bi sama rakk jee ci jaar asufaal séeri jéeri moo ngóone mbay ndaat seen ma gumma njaay ma ca ñaan si tóor nee naa la yow say mbokk merewuñ la say bàjjen merewuñ la ko am merewu la ndax nee naa la tubarka la jasneer yi nee naa la landi na ci famille bi mhm. asufaal yàlla na yàlla guddal sa ñëw ci waxtaan wi waxtaan wi naka mooy yàqante bi ci dëkk bi ak liggéeyante bi ci dëkk bi ak mhm. defante lu ñaaw ci dëkk bi mhm. na tey soo seetloo image yi nga xamante ni weekend bi yëpp génn na mooy armée yi ci Pikine mhm. euh, liggéey yu bon yañ fa génne yi nga xamante ni nee naa la muy ay euh, yu bon bon yoo xam ne ay yére ay yére yu ñëw nga bind ci ay xaatim. Mm-hmm. Euh, nee naa la ay ay ay poqe yu ñu def ci ay butéel. Mm-hmm. lu doy waar loo xam ni euh, ay image la yoo xam ni ñëpp a ngi koy ñaawlu réewum senegal ma wax ma lay laaj rama ban monde lañ nekk nee naa la ñii ngi liggéey ñi ñu bokkal ndey ak baay. Mm-hmm. bañ ñu gën leen ñii ngi liggéey seen i jabar. jabar yaa ngi liggéey seen i jëkkër nee naa la wujju yaa ngi liggéeyeen tey ba ci yaay ak doom mag ak rakk rama lan moo xew ci réew mi lan la xam gis nga Raba Ceena mhm. dañoo laal point bu am solo. dëgg la. point bu ama ama ama am solo. Mhm. moom la ñu. Mhm. moom lañu laal. dëgg la. Raba Ceena dafa am loo xamante ni si. dafa am loo xamante ni si mën naa ñàkk. dafa am loo xam ne. dafa mën a ñàkk. dëgg la lii lu ñaaw la. dafa ñaaw lool. lii lu ñaaw a ñaaw la mm-hmm. déedéet dañoo dañoo ñii ko fay def mm-hmm. dañoo xamul ni dee day am dëgg la ñi ñu tëral foofu mm-hmm. ñu daan dox la di waaxu dëgg la ñu yoroon ni immeuble allah. ñu yoroon ni kaat kaat ñoo xamante nit fi tubaar fa kàlla macha allah lu ñu mës a joxoñ suñu borom teg ci loxo wallaahi ak ñi nga xam ne dañoo juddu rek ñu judd rekk de waa dëgg la xooluñu ni yow kat suñu boroom kàttan gi mun a may may la nga dund ba tollu fi nga toll amoo benn xalaat lu dul dem defi lu bon xaatim nit ki ci lu bon xaatim nit ki def loo xamante ni sii pour dofloo ko yàq àddinaam dama cee lii dafa ñaaw. xanaa lu ko fi jar xale yi def examen mhm. sax dañ leen a yàq wallaay dëgg la xale yi def examen sax dañoo jël seeni bic def ci yoo xamante ni si dugal ko fa am na ci boo xam ne gis naa ko xale boo xam ne dañ ne dafay def examen ñu def turam turu yaayam def turu papaam sàccu bigam boole kaak lañ koy boole sànni ko ci armée bi néew laxas ca la nga cay laxas boole ko ci wallaay muy lu ñaaw pour lan kenn defu ko fi déedéet ku ñu weesu ñun liñ naan deretu bopp du mooy rupp borom du mooy mbaggum boroom mhm. ñun doo nga ko fi def duñu njuddum jéeri duñu mbanam taan ñoo ko fi def fii lañ dëkk dëgg la mais bu ñu bu ñu bu ko jël kenn ku ci nekk di choqué kenn ku ci nekk di jaaxle waaw lan kan moo war a def lii kan moo ñi ko defa ngi ci suñu biir boo demee sax ña nga ca armée di ko balewaale ka defar di baleeg di defar dëgg la di xoolaale ba xam seen denc kenn loxatiwu ko kenn laalu ko ak a leer ñàkkul ñoo xam ni dama ni la ñoo nga fax di xool seen denc ba xam kenn laalu ko di gën a dës waaye boo gëmee ni yàlla suñu boroom moo fa tëral kooku te àddina dina dox ba ñu teg la ci jaak ba dugal la foofu te kam fa tëral deful lu tax mu tëral ko fa yow mi fi bàyyi defoo ko lu tax mu wàcc la ci akaw suuf ngay dox dañoo dañoo réere mbir ndax mm. dañoo yaakaar ne ku gàttu fan wallaay ku gàttu fan wala nga dem sax ba ba ba ba gudd fan lool sax ba faatu wallaay yàlla dalaa ñeme jële la fi ñoom mu ragal leen ndax seen garaat bàyyi leen fi dëgg la bari na ci ñoo xamante ni si boromi garaat a koy def doo dem du ma dem. Mhm. keneen ak keneen du dem. wallaay. da ngay jaay tusi damay jaay tusi doo ma gën a jarle. wallaay tax ma yàq la. da ngay jaay téléphone may jaay téléphone doo ma gën a jarle. da ngay jaay dàll da jaay leneen ak leneen ak leneen ak leneen dangaa ne ci bureau. danga yor entreprise macha allah. Mhm. sa entreprise bi kat la muy def ak la muy wax sama entreprise bi da koy def waaye doo ma gën a doxle. wallaay. dañoo bëgg chaque jour muy def nii yow sa bos ni tekk sa bos ni tekk ngay balballu muy lu ñaaw rama muy lu ñaaw ngay balballu yaakaar ni nag yow bu asamaan si dee daanu boo ko ñee mu taxaw wallaay dëgg la ay guddi bàmmeel wallaay première guddi bàmmeel wallaahi ku ko dul xalaat lu la neex defal ku ko dul xalaat lu la neex defal dëgg la ndax Rama li nga wax ci laay këfee rek ndax nee naa la euh, jamono ji dara dafee jarul dara. Mm. ndax boo seetloo yow mi koy def ba nga koy def amaana kenn jugu la waaye yàllaa ngi jàkkaarloog yow te boo xamoo ni nii ngay weeroo wala nii la say lépp génnee. Mm-hmm. amaana doo ko def. ñu delloo si waat xel yi bu baax a baax. Mm-hmm. tey xalaat tiraayu bàmmeel kon ni ko Rama waxee. Rama booy voyage ba jaar ci àll bi. léeg-léeg nga bëgg a tuur ndox oto bi gaare di la xaar nga jub guy fekk ñu daaj fa ay dàll fekk daaj fa yëre fekk ñu daaj fa lu ay turi jàmbur muy loo xamante ni nii yàlla suñu boroom mu ngi lay gis muy loo xamante ni lu doy waar la ba ci ki nga xamante ni nii nee naa la moom xamul dara nit dina jug sax rama di jàng hmm. mokkal li muy jàng di jël ay premier rek wujju ndeyam ni du ko fi jëlee dëgg la dama koy faagaagal wala ma yàqal doomam ndax doomam du gën sama doom am na fi ci réew mi hmm. am na ñoo xamante ni nii da ngay bokk ak nit jëkkër yàlla mooy joxe doom moo koy xañe nee naa la doom bokku ci say cadeau la rek mhm. yàlla xañ la doom may sa wujj wi ñëw barki démb doom mhm. nga ni doomam yooyu duñ fi baaxee dama leen di def ñu làgge wala dama leen def ñu patt wala dama leen di def ñu duñu ñu ñu tële mhm. jug ci ni danañ am doom te waaye man mi amul doom maa ko gën demee ndax doomam yi mu am du leen jariñoo ndax doom yi ku ci nee naa la utal laa ko ba bu ëllëgee du leen mën a yónni wala duñ mën a dem fenn nga dem ci sëriñ daaj ci guy wala nga gas suul wala nga jël yóbbu ci armeer waa armeer yi néew ba ba nga ko te xalaat nga ni bis dina ñëw ñu lem la yow ba nga jet mm-hmm, mm-hmm. def la ñu def néew boobu déedéet xalaatuñu ko ah rama te kenn du ko fa def bëccëg nag déedéet xam naa nag ñoo ëpp ci àddina ñoo ci àddina dëgg la xam naa ne lii ko ko gis lii ko ko gis mu ni tekk wallaay boo nee saraax ci armeer fekk lépp ne tekk nga xam ni kii tëdd mënta jóg mënta jóg te ki ko fi tëral mooy moo mën ñëpp muy kun fa yàkkoon loo ko mën a wax ci àddina mënta jóg mu pànk mu bari woon doole lool mu amoon fitna loo mën a def ci àddina boo nee teg sa tànk ci armeel gis lépp ni tërim lépp ni teg lay macha allah am ñoo xam ne sax dañ leen di tegale doo am yoon woo jaar mu lëndam lool amoo lenn looy def lu du damay yàqal nit ki dinaa ko yàqal ba du jur danaa ko yàqal ba du avancé ñoo doon ànd duma ma gën du gën gis ngeen léegi diw otom ba wala dis gis ngeen léegi diw këram ga du ko fi dawale du ko fi dawale kër gi du ci dëkke noonu du fa dëkke noonu wallaay tax nga tibb tànkam faagaagal ko yàq àddinaam yàq àddinay njabootam ak ña nga xam ne moom lañu ñoo bootu ca gannaam ñoo ko yaakaar wallaay ak nday ji nga xamante ni sii moom moo juróon ëmb juróom ñeenti weer tubaar fa kàll macha allah benn bés xaw koo gaañ mu tëye doom jooju bay am yaakaar wallahi doom jooju doon soutien dafa mem lu ne ci àddina lu mu yaakaar doom joojoo ko koy defal nga dikk faagaagal doom jooju. wala nga xattal ko. nit xëy na ni xërit dee. nit xëy na ni xërit dee. yàllaay ray de. wallaay. waaye nag li naan euh, ndimbal na cay fekk. loxo am loo xam ne loxo nga ca biir. loxoo nga ca biir dañuy xëy xattal la. nga dawal sa oto ba daje camion. wala nga daw taxaw ci ot ci tali. yow tey ji bu fekkente ni si da taxaw ci tali. te fii yow yoon yoor nañ yoonu oto la. yow traversé rek dem nga. ñu xabtal la nga ñëw ba ci digg tali jàkkaarloog oto mag taxaw mel ni ku dof mooy xabtal gi nee naa la scooter yi toj na dëkk bi ku xale yu ndaw yi scooter di rey yëpp dañ ah. leen xabtal xabtal dëgg la bu baax xale yu ndaw yi scooter yi di rey yëpp mesure partie bi dañ leen xabtal jamante bi waaye rama jamante bi nag. waaw xale yi jamante. jël nit jam ko te doog wala di xabtal am na ñoo xam ñu ci bëri seen xaritale ni rey. am na ñoo xam ne buñ xabtal yoo xamante ne si euh, daba buñ la ko defee. Mm-hmm. bu dee yow mënoo faatu dañu lay dañu lay def loo xamante ni si pour yow ñu muur la jant bi yow di def loo xam jantub boobu bés boobu doo ca génn. dëgg la faaw ñu euh, ñu mënote la yóbbu. te xabtal moo koy waral. xabtal la koy def bari na ci ñu bari ñoo xamante ni si dañ leen di xabtal. wallaay mais liggéeyu bon yi ñuy def ci armée bi ñaaw na. ñaaw na waaye Rama man damay teg baaraamu tuuma sëriñ si. Mhm. ndaxte sëriñ daa war a def lu baax. Mhm. wala nga def lu nit dina ñëw ci sax bëgg lu bon nga ko teg ko ci yoon. ni ko lii boo ko defee. dina baax mhm. waaye sëriñ si tamit boo gisee man la dama leen teg baaraamu tuuma si léegi dañoo am ay coog Mm-hmm. maanaam dafa am xale yoo xam ne dañuy fréquenter sëriñ si mm-hmm. ñooñu ñooy jël sëriñ seey liggéey jox leen ñu dem placé ji mm-hmm. bëri na ci réew mi loolu tamit nañ ci wax sëriñ si nga xamante ni dañuy liggéey seenub liggéey ba pare am xale yoo xam ne ñoo leen di fréquenté li leen attaayaal di leen gunge ci guddi gi ñuy bind ay xaatima ki téere bu nu paree jox ko xale yooyu ni la demal defal ma ko ci boppub néew wala demal defal ma ko ci perkaal ba wala demal daggal ma perkaalub néew wala mu ne la bàyyil ba nga gis xool xool gisoo kenn nga dugg ca ca ca armeer ya daggal ma fa dara wala nga jëlal ma ci karawu néew gi sëriñ si tamit rama am nañ ci part de responsabilité bu baax ndax nit ki nga xamante ni moo ñëw ci yow mhm. ni la damaa bëgg a def nangam bu dee lu bon la mhm. nee ko loolu de digaluma la ko am na ñaan bu ko gën a gaaw mhm. dalal xelam waaye jaamuwoo leen dara lu dul xaalis te nee naa la yow sëriñ si yow mii def yàlla ngay ñaan waa kii ñëw ci yow lan moo ko teree jàpp ba sell bàyyi ba trois heures du matin mu toog ci si jaadaam ñaan yàlla koom yow yàlla ni koy may rek moom moo lay may ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm yàlla ma mais sëriñ si tamit war ñoo defaraat seenu toogaay mhm. ndaxte lu jig njaaga ñoom tamit ñoom ñooy njaag nañ ma baal tamit ci kàddu yi euh, da ne sëriñ si mais mhm. rek bu xaa bay dëgg la sëriñ sa ña nga toog ca seeni der tubaar fa kàlla macha allah tiim seeni arfuraan yor seeni kurus di ñaan lu baax boo ñëwee tàllal sa loxo dëgg la ñu ñaanal la nga dem nga dem mu jariñ la mun mu nangu nag mhm. sëriñ si yenn ci sëriñ si ñenn ñi sëriñu léegi yi rek merci mhm. ñii def lu baax ba tey ñu ngi fi def lu baax waaye ñii di def lu bon duñu ay sëriñ ay buxaaba lañu ay buxaaba buxaaba lañu dégg naa dëgg duñu def lu baax duñu ko wax mhm. li nga wax léegi ne xaalis lañuy jaamu te muy dëgg dëgg la xaalis lañuy jaamu yow amal xor rek ñëw ni leen damaa bëgg nga faagaagal ma diw mi tey ñu jox la bés dëgg la defal la loo xamante ni si ci lu bon akay dëgg boo demee yow nag ni xob toog di xaar dëgg la yaa ngi xaar bés bi mu la jox bés boobu bu ñëwee yëf yi mel ni bal xam nga am na lu bari loo xamante ni si sax dañ naan bu àndeek amiñu suñu borom bu àndeek yàlla nangu mhm. da ngay bajjatu dafa ni da ngay bajjatu def yëf la nit mi ngi def yëf suñu borom ànd ca di jay ngay bajjantu daani lii maa ko mën a def maa la mën a defal loo xamante ni si kii dama ne la du fi sukk jur doom am wala kii du fi tekkee dëgg la wala doomam ji du tekki wala xoolal lijjanti na ko ba paasal ko ba génne ko réew mi waaye wallaay di dina delsi dinañ ko refoulé naawtal ko mu ñëw te moo doon yaakaari ndeyam doon yaakaar baayam Thione Seck wax na ko jàpp doomu jàmbur liggéey ko ba mu sànk ay waay juram toog mu nekkoon seeni yaakaar wallaahi nga tas yaakaaru ay way juram mm-hmm. muy lu doy waar la ma loo xamante ni nii nit ñi war nañ ci tamit di nit ñi nañ delloo si seen xel ci yàlla rama mm-hmm. ku xat ni nit ñi ñoo war a xam ku mën yàllaa la mënal ku am yàlla la amal ndax nee la magasin yàlla bi lu nekk a ngi ci te doomu aadama yi rek la koy jox waaye mhm. soo bëggee xalaat ni kii kat li mu am sëriñ ko may kii mhm. li muy def sëriñ ko defloo nañ nangu liñ naan nañ nangu ku nangu noppalu nangu day yombalu du ma sax waaw kay comprendre ma bokk nit ndey ak baay di ko liggéey am na mënumaa comprendre bokk ak nit jëkkër wujjante wujje wujjeeg nit tax nga bëgg koo liggéey na dee mbaa mu dof mbaa mu génn kër ga ba léegi jeeg jeng koy def te damaa bëgg nag ñu yeewu ci rama mm-hmm. loolu ndax euh, mën ngaa dem di liggéey sa wujju fekk nga mu gën laa mu gën laa baax bopp la nga koy liggéey ut kolbatiku tuuru ci sa kaw fekk def na ci yaramam loo xam dëgg la ku ko laal yàqu day mel ni teng boo dóor ci dëgg la dëgg la day dellu siwaat ci sa kaw mm-hmm. xanaa xamoon ne dañoo dof xam nga tubaar fakàlla macha allah waxi sëñ Fallou ja doon wax ni ku ku deful xarfa fuufa xarfa fuufa ni la xuuf ni la xuuf mm-hmm. kenn toogatut déedéet kenn ku ci nekk ndax nag ku ñemee dañu laa déy dëgg la ndax gis naa daba mii kat macha allah mi ngi toog fii senegal set mm-hmm. di def ba mu baax ah gis naa rama mi tarkal la ma nga ne ca mbaaw wala ma nga ca feneen ak feneen di def ba mu baax danaa fexe nu ma leen jëlee foofu man jéem faa ñëw toog. dagg la waaye bu àndul ak. amee yàlla loo ci mën. waaw waaye fekk ramam moomu wala dabam moomu daa daa sangu. dagg la. dangaa sangu. tarkal la. ba sa yaram neex. ba sa yaram neex. di cof di mëq. dëgg la. tarkal la bala ngaa génn. dangay seere. wallaay. belende sa bopp. def nii comme miir. nga wëlbati ko daan ne dinaa koy yàq dinaa fexe ba foofu mu nekk ma jële ko fa dinaa fexe ba lii muy def du ca am ndam dinaa fexe ba sëy bii muy sëykat du ca am doom wala du ca am jàmm nga dem ca buxaaba ba yëkkati li nga am lépp jox jox ko mu defal la te kooku xalimaam du laal suuf mu defaral la waaye dafa fekk kële dem ca supérieur buxaaba ba defar yaramam sécurité boppam yàqul kenn daal di toog yëf yi ñëw nag dellu siwaat wallaay te bu dellu siwaatee day di nga jàpp ci concal kuy daw ndax nee naa la looy def ni tooñ nga suñu borom dëgg la tooñ nga suñu borom tooñ nga nit ka yàq nga sa alal dëgg la te yaa ngi mettit woo xamante ni si kenn du xam déedéet fan la jëm ak yow kuy jaax kon ana lu ko fi jar. kuy jaaxaan di saw balaa kenn di tooy yaa njëkkalóor. waaw loolu la sama maam wax. waaw ba pare nee naa la yaa ngi jël nit ki di ko faagaagaal. diw war a takk diw nga ne loolu di fi am. Mhm. fekk yow ma naan loolu di fi am wala ngay sëriñtu kooka ngay sëriñtu ëpp la bopp. Mhm. nee naa la da da bañ mu sëy waaye yow ci sa bopp yow la sa sëy di tas. dëgg la ndaxte nee naa la képp koo xamante ni nii yaa ngi koy gis rek xamoo la ko ndeyam boote. Mhm. xamoo fu mu jaar yàlla mën naa jël nit kii sàq di ko sàmm ba mu nekk magum jëm. ni nga leet ne léegi nga ni kii dama koy faagaagal wala kii dama koy def loo xamante ni kenn dootu ko jariñoo wala kii dama koy def loo xamante ni nii àdduna bi dootu fi tekki dara léeg-léeg nga yàqal nit fekk yàqaloo ko da nga koy defaral mhm. ba tax na rama moo tax sëriñ tuggi da ko jarul wala jarul ndax nee naa la yomal xayaam ku ci nekk rek lépp loo def doomu aadama di nga ko yanu mm-hmm. te ku ci nekk lépp loo def doomu aadama di nga jàkkaarloog moom face à face waa perkaalub néew nga xotti ko mm-hmm. bu keroog yomal xayaamee ñu yan la néew ba yan la perkaalam lool di nga ko attan nga jayi jayi moom ah booleeg fitna ga ca booleeg fitna ga fa ne dëgg la ak fitna ga fa nekk yow ak fitna ga fa ne ndegam dooma lay jege nga ni ko ni yow ñu yan la ka te nag gis nga ko tàmma def lu bon. wallaay toujours da nga koy def. dëgg la am na ñoo xam duñu yan benn néew ah benn néew. duñ ko ma a yanu. fanweeri néew la ñuy yanu ndax. waaw malaan la ñu xool. merci beaucoup parce que defoon naa kii kat. dëgg la boo ma tooñee dama lay lijjanti léegi. wallaay ci lu mu gën gaawe wallaay def ko mu dal. bu ëllëgee nga def ak keneen. ni ko boo ma tooñee dama lay lijjanti danga maa xamul. boo ma xamoon danga may laajte. kooku ne la dooma def dara nga wëlbatiku defaat ko. am na ñoo xam waaw am na ñoo xam dañu yenu benn néew. wallaay dëgg la. say day mel ni sayub mat. wallaay dëgg la nga yenu koy sayi sayee ak moom. dëgg la doo xam ne jëm ak moom. ba pare rama léegi tëkkonte bee bëri. Mm-hmm. tëkkonte bi koo waxal mun na la barke na waat fu gën a aay. Mm-hmm. mënuloo ma dara. Mm-hmm. léeg ñu def la dara nga ne ko man ngay tooñ. ñetti fan laa la may pour lan tëkkonte bi. te nag dafa sax wóorul. dëgg la bu tombeeg malaakam amin ñetti fan yooyu lu ko ca dal yow la di koy ji kooku génn oto ni ko tëral wala mu tëdd dee wala leneen ak leneen wala yow boo moytul sax dañ lay tam wallaay dëgg la boo moytul dañu lay sax tam daan ne ah waaye yow dégg nga diw da koo tëkku de démb démb da ko tëkk tay mu xëy dee wallaay bu ko defee yow nga yàqal sa bopp ci àddina te xam nga lu la yàqal làmmiñ gis nga accident làmmiñ kenn mënu ko constat déedéet wax ci biir gémmiñ yoo la day mel ni yoo day ndaw lool. wallaay waaye bu génnee mooy ëpp ñay. kon looy wax na ko xam. wallaay dëgg tëkku bi mën naa ñàkk. wallaay dëgg la. ndax léegi ñëpp a dee. ba pare di dox am na ñoo xam ne fi mu ne lekk nañ seen liñ naan euh, nit dina dee ñeen fukki guddi. am na ñoo xam ne lekk nañ seen ñeen fukki guddi la ca des da dara de. déedéet nga wax ak nit ki nag daal di koy tëkku nag fekk. suñu borom tracé woon na ba pare daan ne kii dootul am 24 heures ci kaw suuf. wallaay dëgg la mu faatu ñu ne yow a. li waaw bu nee yow a nag ñu koy dëjal nga ñëw ca dëj ba ñu lay gaaru rek la sànni ay taraak dëj yu bari. ay a ngi ciy ñëw ñu naan kii de moo ne kii dee. mu ñëw ci saraxam si moo ko roy. waaw wala fekk da koo tëkku dëgg la xaar ba mu ñëw. ba mu ñëw fekk yaa ngi ànd ak léegi dëj yëpp ay coono la. ñu ngi noonu ay xuloo laa ke xeex ndax yow da ñëw ñu ne diw mii ñëw kat moo tëkku woon kii dee mm-hmm. ñu la fay gaarawaare di la fa xas fekk li nga wax rek bu tombeek aminu yàlla mhm. ba tax na kon nañu bàyyi li nga xamante ni mooy euh, li ñuy def ndax jariñul dara ci réew mi jariñul dara nee naa la réew mi nit ñi lu nu lekkalantal lu nu naan nee naa la ak appartement yu cher yi mhm. ak dund gu metti gi waaye taluñu di dem ci sëriñ du xottee perkal di yëkk bopp petit bopp bi néew nee naa la lool ku koy def du nit ku koy def man sax mujj du rafet dëgg la ndax rama mënumaa comprendre armel nga dugg ci ak armeel ni mu mel ak armeel ni mu ni mu ni mu triste ak armeel ni mu dawe yaram nga dugg ci xam ne ku riis ku neen ci tëdd mm. borom barke bu neen ci tëdd nit deena ne ca armeel ya bàyyi alalam nit deena bàyyi njabootam nit deena bàyyi doom juy nàmp nit deena ak accouchement nit deena deewee na nu ne yàlla jëlee na doomu aadama nu ne mm. yow nga dugg fa war leen a sànnil fukki xulwa ak juróom nga jël say xeer wala nga jël sa kuddu wala nga jël sa peel ni damay dem gas ba jot ca néew ba hmm. ak ca pax mañ koy dugal dinaa dagg ci yéreem wala dinaa dagg ci mbalaanam wala dinaa dagg wala dinaa yëkkati bopp néew ba ut lu ma fa ron xanaa xalaa xalaatoon ni yàlla yàlla yàlla yàlla rek buur te daba yàlla mën a seetaan hmm. xam nga foofa rek suñu borom mënul na ko faj wallaay dëgg la waaye dalay seetaan xool fu wànnent di mu jékki bëtam wallaahi ndax foofu nit ka tëdd hmm. am na ci ñoo xam ne dañ naan dañuy xaa dañuy kii néew bu bees néew boo xam ne du am sax ñetti fan. waaw wala néew boo xam ne âge bi. wallaay. na ci ñoo xam ne dañ naan âge nangam wala néew bu jigéen wala néew bu góor. wallaay léegi suñu boroom yow bu fekkee dangaa dem foofu di gas suñu boroom daan ne xaaral ma wan ko kiraam kiraama goo xamante ni si moom ci lay jóge dootul defati lu bon. waaye suñu boroom day seetaan danaan tekk. dëgg la nga def li ngay def néew ba mënta wax mënta jug néew yëpp di la gis te néew day gis ah. dëgg la nga def la ngay def nag waaxu génn di condom condom yi dem. di jéggi ay bàmmeel di dem. yàlla naan xalaatoo di fii yow ci fi nekk. ñaari loxo la am comme yow. wallaay amoon kattan kon yow. amoon kattan yow. di dox di dem ak yor ñaari tànk comme yow bu dee góor la mu yoroon soxnaam makki njabootam. bu dee jigéen mu yoroon ak njabootam. xalaatoo loolu lépp. Mhm. yow daal kenn dox nga la ñor mooy ki la tax a jóg. nga dem ca bu xaaba ba def nga la ngay def jox na la ko ñëw nga daan ne xaaral ma def li may def benn yoon mu jeex kenn gisuma. wallaahi kenn gisula kay. waaye rabbi samaawaati wal ardi. wallaahi dëgg la borom bët bu rëy bi tubaar fakàlla macha allah gëmmul te nelawul. wallaahi te lu waay def fii. Mhm. dina la di nga ko fekk fee. wallaay dëgg la. kon nag nañ ko rafetal. rafetal rek ndax xam naa ne naa na xale yu bari yoo xamante ne ñu ngi ak seen i seen i xam-xam. ñu ngi ak seen seen seen mën a jàng gu yàlla def ci ñoom waaye seenum njàng yàqu na ndax mm. liggéeyante ak defante lu ñaaw kon yàlla ci yàlla musal mu mel ni sunu waxtu nag daf ñoo dab ci euh, biir émission bi nga xamante ni nee naa la ñun ñi toog di ko pelloo sax doyaluñu ndax nee naa la day lu am solo loo xamante ni nii képp koo xamante ni yaay nga wala ngay papa wala ngay wéyjur wala loo mënti doon rek ci réew mi yaa ngi gis li yaa ngi bu baax mm-hmm. àdduna sépp di ko ñaawlu mu doon loo xamante ni nag kenn rafetluwu ko mm-hmm. te yàlla nañ ci yàlla musal euh, ñi koy def yàlla nañu yàlla yàlla leen yàlla weer kon nii mu leen weere nii mhm. ñu def ko ci armée yàlla na leen gën a weer ba ku ci mhm. nekk rek bu ëllëgee nga xam sa bopp ndax def katalu bon kat rama mhm. jarta nëpp nëppal dañ koo war a wane bam ni fàng ni dàng ba ñëpp xam ko kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ak sutura may ñu mujj gu rafet may ñu xalaat bu rafet may ñu kattan ak mën-mën goo xamante ne ñu ngi koy defee ci lu baax te bañ ko jëmale ci ñu ci lu bon nee naa la internet ñuy liggéey yàlla yàqu yàlla nañ ci yàlla defal jàmm ndax nee naa la ku ci nekk rek am nga loo xamante ni dafa nekk ci yow mm-hmm. muy nelaw te nee naa la bu woo yàlla na doon lu baax yàlla bu mu doon lu bon kon yàlla ñu yàlla xiital ci lu baax rama émission bi nii la woon dama lay bàyyi rek nga daal di mm-hmm. euh, tàggatoog ñu ñu doon seetaan sant yàlla bu baax a baax macha allah émission bi am na solo bu baax a baax a baax di mm-hmm. gën a ñaax rek xale yu jigéen yi nga xam ne ñooy sëy surtout ñuy doog a dugg ci sëy bi dañu yaakaar ne bu ñu ñëwee ci sëy bi ka fa nekk da leen fay puus dëgg la ba tax na ñoom bu ñuy dugg dañuy duggaale loo xamante ni si dañ naan mhm. bu ñu mayul jàmm moom mu dem day génn mën naa ñàkk nañu jàppale seenu jëkkër nañu jàppale seen bopp jàppale njaboot gi nga xamante ni si moom lañ cee am ëllëg mhm, mhm, xoolit xam ni fee ñu yóbbu ay liggéey ñoom tôt ou tard dinañu fa dem wallaay dëgg kon mën naa ñàkk xale yu jigéen yi nga xam ne da ngeen di wujjee nga bàyyi leen yu ñaaw yi ngeen di defante bàyyi leen yu ñaaw yi ngeen di defante amul benn njariñ amul benn sens sa jëkkër boo ko bëggee ni nii mhm. tubaar fa kàlla macha allah am na noo koy téye am na noo koy téye te doo dem cëp sëriñ naan ko defal ma nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam maa la ko wax macha maa la ko wax di sant ñëpp nag mhm. di gërëm ñëpp di wax ni lu ci jub suñu borom la lu ci dëng ñu xam ne ñun la ndax ñoo matul macha allah di nuyu Adja na bu sama rek sama rak maa ngi lay nuyu bu baax a baax gay sama Issa Mbaye dooti ma ca gaanjaalente jama maa ngi lay nuyu bu baax mm. moo ma defal daamina bu baax bii sañseel ma ni ma rama ma ni ko ah, mu ma defal lu la neex waaw firale sa defal lu la saf <laughs> macha allah maa ngi nuyu yëpp di ma maman gentil sama yaay waaye sama mag maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak buur géwél di nuyu ñëpp di jox euh, dig daje ba beneen yoon. incha allah maman Jante yaay ju baax yaay joo xamante ni mhm. nee naa la ku sañoon ngay yaayam ndax baax nga bax dëgg yàlla. Mhm. bëgg nga sa nit bëgg nga sa nawle. Mhm. maa ngi lay nuyu man mi bu baax ak sama ba papa bu nuyu bu baax a baax. waaye nee naa la nag di nu ziar ki nga xamante ni nee naa la mooy bawal Omar. ñu koy wooyee bawal ma nga fee ca Sicap Mbao mm-hmm. nee naa la tubarkalla képp koo xamante ni rek jeune talent nga sa iPhone lay jënd nee naa la mm-hmm. borom iPhone yu baax yi tubarkalla macha allah nee naa la iPhone say iPhone directement États-Unis lay lay jóge di ñëw ci yow mm-hmm. nee naa la xale yëpp ku ci yor iPhone di si na boo ko laajee mu ne la bawal ma ko jaay kon maa lay ñaanal gudd fan ak wér di xale yëpp nañ daw si ñëw nag jënd say iPhone nee naa la doo jaay iPhone bu bon doo jaay turbo iPhone boo jaay rek qualité la tubarkalla nee naa la képp koo xam ne yaa ngi ci showbiz bi Omar Bawol moo lay jaay téléphone feete si Kaap Mbaaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar boroom téléphone yu baax yi borom baax baax bi tubarkalla macha allah waaye nag nee naa la tey ji ku ma gis rek sama rakk ji moo ma solo asu faal naa la séeri ji ngoone may ndaar ci tubarkalla sama rakk ji nee naa la sa jasneer yi miin na sa famille doo sàmba àllar wi taxulaa jóg kenn wayu la mhm. ko yal na la yàlla bàyyeeg jéeri ngoone di la ñaanal gudd fan ak wér yaayu papa duudu tubarkalla sama rakk ji lu ma la wax rek doyul ku ne xam na diggante daba ceen ak asu faal mhm. naa la jasneer bu ma sol rek yaa ma ko jox nee naa la samay armoire ma génnee jasneer yi ya ma jox la fay des yaakaar naa ne dootul bari wala du am solo di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ñu doon seetaan ci émission bii di émission jal jariñu ñu koy pelloo maak Rama Docteur Dieg gi di leen jox dig daje rek beneen émission ak beneen thème jërë jëf